asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari wayjur ñuy gërëmaat ñëpp di nuyu Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp di waajal nag guddi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ku ne xam ne Seyduna Muhammad moom ñëpp a ko bokk mais nag ah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bañ ci gënee fës alhamdulilah rabbil alamin di sant ñëpp ñëpp ñëpp tey nag. di nuyu tamit suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi di nuyu ñëpp suñu xalifa général bi yàlla ko yàlla may wér ak gudd fan dafa ko sutura àdduna ak ak lii mu commencé yàlla def mu àggale ko jàmm ak salaam ak bépp mboolem julit ci barke Seydina Muhammad tey nag day dina nekk kàdd cant ak kàddu tamit am lu ñu naqay trop di ko kaas parce que ñu fiy dégg lu bare bare bare ci dëkk bi te kat neexuñu te ñun ay ndaw yu wut dong lañu. bëgg a teral suñu wayjur bëgg a teral bépp doomu aadama bu ci bëgg a ñam parce que teraanga yow mi koy liggéey dong yaa koy lekk ñëpp a ci ñam ñëpp parce que mën ngaa xam ne lii yaa koy liggéey sax def poos nga koy def mais doo xam kana kana ciy lekk te ñu bëgg a def loo xamante ni gaa naqay nañu trop ba ca kanamu yàlla te amuñu woon nag fenn fu ñu ko mën a jooyee ludul kat ci yéen presse bi yéen tamit di leen jaajëfal seen liggéey ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax parce que ñu fi dégg yoo ni kat. ñun mësuñu ko dégg ci àdduna parce que ñun fekk nañ fi ay gàmm yu baree baree baree baree fekk nañ fi ay gàmm ñun ba juddoo yàgg na mais dëpp ba juddoo ba léegi ñu fekk ay gàmm yoo xamante ne nii fu la neex ngay toog la di jaay fu la neex ngay toog def lu la neex mais ren dañ cey dégg ay coppeeku yoo xamante ni nii naqay nañu trop ba ca kanamu yàlla ñun nag mu ñoo dem ci kaas yi fenn ak di jooyi fenn fi ñu mën a kaasee kat mooy ci lii nga xam boo ko wanee àdduna yëpp gis ko mais dañuy wax li nga xam moo ci ëpp importance muy lan ah ñun ko dañ daan jaay suñu buntu kër yi di ci teral suñuy gan ak di ci teral suñuy njaboot te ku na xam ne jaay buntu kër yi ñuy def defuñu ko ngir lenn dañ ko daan def ngir lan teral suñu gan yi xam ne jógee dëkk ak dëkk ku ne xam ne ne gàmm dafa metti mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndax guddi Muhammad kenn waru cee kaas loo xam te mooy loolu mais dañ daan jaay suñu buntu kër yi ci dimbali suñuy njaboot di ci dimbali gani yi mais ren dañu ñu kat kenn du jaay sa buntu kër te nit ki bala nga koy tere dara dafa war a fekk nga ñëw ba ci moom ni ko kat ñun bëgg nañ lii bëgg nañ laa te moonte ñoom bu ñu soxlaa réew mi wala bu ñu soxlaa dëkk bi dañuy dugg kër par kër nan la man lii laa bëgg lii nga may jàppale lii nga may dimbalee ndax boo liggéey su ma fa dafa lii mais dañuy nax amul parce que amul li tax amul mooy lan ren def nañ loo xamante ne mosut am teewoon ci jamono El Hadj Malick Niang mi fi nekkoon premier maire El Hadj Malick Diop sama waa ji jaañ si meng kenn mosu fee def lu mil ni ci àdduna te mosu fee am nit nag boo ñëwee ci dëkk te xamoo dëkk bay doxee da nga waa dëkk ba ñun Sénégal dañuy jaawale dundal dëkk ak dundee dëkk loolu nit ñi di jaawale ñun jàpp ne ki fi nekk dafa dundee dëkk mais bëgg koo dundal ni ngi ñaan bu fekkee da ko bëgg dundal mu ànd ci ak jeunesse bi taxam xam bi ñoo ko fi tegoon bu dee da ko bëgg dundee mu dundee ko ak ñam àndaloon dëkk ba ngoogu na def lu ko neex mais en tout cas dinañ kaas suñu doléance. su ma déggee sa biir wax ñoom bu fekkee dañ def li leen neex te waxtaanuñu jeunesse est-ce que jeunesse bi tamit ñu ngi toog di ñoom li ñuy def ànd leen si wala ànduñu si parce que mu war la xeexal. Mhm. kuy def lu ko neex su la arrangé la di wan sa bopp nii neex. Mhm. beneen si kaw loolu. ñun ñun biñ juddoo léegi dañ gis lépp lu diine xewle. Mhm. dëkk boo dem am na ñoo xamante ne jëndax jaay bi moo leen siy nekk. mais tey bu ñu leen interdit yéen ñi dëkk si doo leen jaay keneen du jaay d'accord leen si alentour jàkk ji mhm. mais yeneen secteur yi bu ñu interdit dina baax si askan waa Tivaouane waaw woo sax dinañ ci nangoo ak ñoom ci benn côté mais dinañ ci bañ a nangoo ak ñoom ci beneen côté man d'accord naa ñu ne kat jumaa gi dafa nekk sànce loolu ku ne gis na ko ku ne xam na ko ñu ne kat dañuy def distance 100 mètres ak jàkka ji bu fa kenn lal lépp d'accord nañ ci ak ñoom dañ ciy nangu mais boo bëggee ni maanaam fii ba angle Ndiaga Mbaye wala fii ba angle Pakala Mbaye fii ba angle Ndiaye CFA kenn du fa lal non loolu ñun dëkk bi ay at yi at a ngi jaaykat yi mosuñu ñoo ci benn côté ndax ñun ak jaaykat yi ñun ñoo bokk bokk nday ak baay ndax jaaykat boo gis jëndkat la soxla te jëndkat boo gis jaaykat la soxla ko ñun wax dëgg yàlla gisuma fu ñu déranger ci benn côté gisuma ko xëy na kay ñoom la déranger ñoom ñi nekk seen néegi neex yi toog macha allah kilim gën a ëpp xëy na ñoom dafa leen déranger ñoom mais ñun wax a yàlla moom ñu yàqal ci gàmm gi préparé seen projet den seet ñi ngi a waxtaanal ne ñoo ñoo yor tey sécurité dëkk mhm. a dajale waxtaan dooni xaama woo ñi nga xamante ne ñoo am bopp ak ñu ñoom ñoom bu ñu politique ñoom dañuy def porte à porte da may dégloo bu baax waa porte à porte yi kër gu ne ngay dugg naan kat damaa bëgg ngeen jàppale ma damaa bëgg ngeen jàppale ma ci porte doo bàyyi benn kër mais kon boo liggéey soo jël sa décision bopp wooteel ña nga xam te ne ñooy magu dëkk ba wala magu kilifay dëkk ba nga leekat man décision bii laa bëgg jël est-ce que dina arranger jeunesse bi parce que jeunesse bi ñuy xeb ni ñoo fi tek ki fi nek nii tek fi ko fi jugé won ñun nak dañoo joom fu bare bare dañoo joom te joom bi da gaay ñu koy soga xam ni ndax ki fi nekkon dañ ko wax loolu diko xass te or ko lolu amul xëy nak erreur day am parain say nak mais nak lu àdduna moom Sénégal moom lu xam moy lan folli la xam folli mais bu follé fi ak 3 mois 4 mois kam folli woon dina xam lam koy soga a ñu na xëy nak kon ñun kañ kañ kañ dàqoon nit baaxul xëy na Sénégal ñi ngi soog a xam erreur bi man nag maa ngi lancé benn appel ci monsieur Macky Sall yàlla nga dégg sama message bii ñun am nañu lu naqay trop suñu maire bii parce que dafa am erreur boo xamante ni waru ko woon def parce que àdduna booy jël sa décision da nga jël décision waxtaan ca ak waa dëkk ba waxtaan ca ak jële si koñ ba loolu amul lu may tëj asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokk yi nag kàddu gi lu ci rafet yàlla la lu ci jumte ñoo xam ñun ñi la dañoo matun te nit matun asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di siyaar di siyaar ñëpp di siyaar waa télé bi di siyaar waa Tiwaawan di leen nuyu di leen jax seen wàccuwaay di ñaanal suñu xalifa bi jàmm yàlla may ko jàmm wéral ay cëram guddal fanam bu baax a baax a baax ci barke Seydina Mohamed. a ah, di wax kat ci Tiwaawan parce que ñun Tiwaawan rek lañ am ñun Tiwaawan rek lañ am te Tiwaawan lañuy lañuy sagoo di fi xeex lu bon lu bari nag ñun ñun dawal ko du Jakarta yi nekk Tiwaawan di fi xeex lu bon. lu bëree bëri bëri loo xamante ne lu bon la bu amee Tiwaawoon ñu dañ koy xeex kon ñun jeunesse lañ boo xamante ni dañoo am doole ci dëkk bi te campagne yi fi amoon comme ni ko gars yi di waxee rek gars di dañoo defoon porte à ñëw si ñun wax ñu luñ bëgg ñu ànd ak ñoom ba fal leen fi. kon tey jii nii lépp loo xamante ni ñu ngi koy jël ay ay ay ndogal war nañoo woo kilifa dëkk bi woo magi dëkk bi waxtaan ak ñoom laaj suñu avis parce que bu ne tey jii nii Jakarta du daw si Tiwaawoon loolu dafa nekk loo xamante ni daf ñoo naqari. parce que ñun amuñu leneen mais nag duñ sàcc duñ agressé ji dinañ daan suñ doole di yóbbul suñuy waajur di yóbbul suñu suñ njaboot kon war nañoo bàyyi xel ci jakartaay te xam ne am na ñoo xamante ni dañuy jóge fu sori ñëw bu ñëwee ci gàmm fi ñuy wàcc ni la ni la place nangam laa jëm saret mënu leen faa yóbbu oto mënu leen faa yóbbu jakarta kese moo leen fa mën a yóbbu ndax xataay bi kon cest à mooy ñun baax nañ fi ñun xam nañ loolu baax et puis dagaloon nañ ñu trésor pour ñu fay 6000 francs jakarta bu nekk ñun fay nañ ko te loolu bu gàmmu ñëwaan musaan ñëw lañ koy def pour ñu mën a liggéey ñu xàmmee suñuy tableau xam ne ñun waa Tivaouane tamit dagg nañ loolu lépp kon bu ñu ko teree kon lan lay nurool ñu dagg suñuy 6000 francs ñu ni 6000 francs ba pare ñu ni ñun duñ dawal ci gàmmu gi loolu lan la parce que dañoo war a xam nit boo ko boo ko boo ko jëlee ci benn affaire da nga koy defal loo da nga koy defal loo xamante ni maanaam day gën ci li nga ko jëlee mais ni ko doo def lii te yoxoo ko dara loolu baaxul loolu ki ko Diop si war na cee bàyyi xel monsieur le maire Diop si war a cee bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que ñun Tivaouane rek lañ am te ñun ñooy jeunes yi nga xamante ne ñooy xeex lépp lu bon lu nekk Tivaouane dañ koy xeex lu bëri lu fi lu fi nar a bon di fi am ñun dañuy taxaw xar suñu tànk doy xar suñu tànk tubéy nu di fi amee kon ñun dañoo bokk ci dëkk bi dañoo war a bàyyi xel bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla parce que ñun kat ñun ay ndaw lañ Diop si bàyyil xel waa Tivaouane ba nga faloo yàggul ñun dañuy waxee woo directement parce que ay doomu Tivaouane lañ Diop si la ñuy waxal ba nga faloo yàggul bàyyil xel waa Tivaouane parce que tey jii nii bu nee buntu kër yi duñ fi jaay loolu lan lay leneen lay nur parce que ñun ban juddoo ba léegi ñu ngi fiy fekk ay maire Moustapha Niang El Hadj Malick Diop jaañ si méng Diop si kon bu ñëwee tey ni buntu kër yi duñ fi jaay loolu ñun duñ ko duñ ko nangu mënuñu dara nag ñun mais duñ ko nangu wax dëgg yàlla parce que bu ñu woon alentour jumaa ji quatre côté yi nga xamante ne ñoo wër jumaa kenn du fa jaay ñun duñ fa jaay foofu Jakarta du fa jaay jaar kenn du fa jaay wax dëgg yàlla lool dinañ ko d'accord mais yeneen buntu kër yi nga xamante ne mu ngi jege xaw a jege Tiwaawoon yooyu noonu ñu ko daan jaay dañ ko war a jaay wax dëgg yàlla dañ ko war a jaay parce que nit ñi loolu lañ am di ci dimbali seen i gan gàmmu Tiwaawoon dafa métti da ngay gis ay kër yoo xamante ni dañuy jege jumaa ji ñooñ li ñuy consommé ñ jegewul jumaa ji duñ ko consommé te kenn du dimbalee dara du saaku ceeb du dara te loolu dafa metti parce que ñoom da ngay gis ñoo kër yoo xamante ne ci waxtu jumaa ji la ñuy ne ci waxtu jumaa ji lañ ne jour gàmm la oto manque di manque seen i force te monté manque nañ ko avant gàmm gi parce que day feesaat parce que ñi ñi ci consommé dafa bari fii doo ñëw rek ñun la di dugg ci kër da nga bëgg dem douche wala da nga bëgg a dem fer ñu lay tere dan lay bàyyi kon c'est-à-dire mooy war nañoo bàyyi xel ñin ñi nga xamante ne ñoo jege taatu jumaa ñu leen di dimbalee dara ñu leen di dimbalee dara nguur gi di leen dimbalee dara parce que ñoom li ñuy consommer dafa metti ci gàmm gi te amuñu doole boo xoolee kër yi jege ji maa ji yëpp amuñu doole ay néew doole lañ te duñ leen dimbalee dara seen buntu kër yi lañ daan jaay pour di ko dimbali ko si gi ñu tere ñu loolu loolu baaxul nañ ñu bàyyi xel nañ ñu bàyyi xel ñun wax dëgg yàlla parce que ñun ñoo doon xool système bu baax ba jël jóp teg ko kon nañu bàyyi xel wax dëgg yàlla parce que am na loo xamante ne war lay nural lu fi musul am nga ñëw jël ko teg ko fi di ñu forcer loolu kenn xamul lu doon nañ ñu bàyyi xel wax dëgg yàlla et puis dawalkatu jakarta man leen bàyyi xel bu baax a baax parce que ñun dañ fee am njëriñ dañ fay am njariñ bu baax a baax parce dañuy dimbali ñu bëree bëri da nga yeb nit di ko yóbbu sax mu la sawaay baax ngeen fi parce que coono jim naroon am te bu fekkee job si appliqué na lii nii di nga gis noo xamante ne dañuy gàmmu si dañuy ñëw tiwaawoon gàmmu si mais dañuy dañuy ñëw dañuy ñibbi après duñu mën a dem seen dal dara du leen fa mën a yóbbu sax parce que seen daal sori na parce que Tivaouane léegi mu ngi yaatu bu baax a baax a baax nañ bàyyi xel lool bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla parce que nit la jël teg la fi ngay demee ni la neex rek loolu moom du jaaduwul te instant bi sa waay lu ko neex lay demee ñun loolu soxla wuñ ko wax dëgg yàlla soxla loolu de nañ ñu bàyyi xel bàyyi xel waa Tivaouane dëkk bu neex la boo xamante ne dafa yaatu ñun yaatal gan rek lañ xam ku fi ñëw ñu yaatal la amuñu benn problème Tivaouane non violence la ñuy doxee kon cest à mooy ñun bu ñu yóbbu ci yeneen affaire ñun suñu jakartaa yeeg buntu kër yi ñu jaay ci gàmmu loolu am wax dëgg yàlla duñ sàcc duñ agressé duñ def dara te am na baaxul waaw ñëpp même wax bi la ni wax Diop si Diop si na bàyyi xel waa Tivaouane mhm. yaakaar naa ne information bi dina ko jot incha allah incha allah mais tey yéen am ngeen sécurité jeunesse bi nekk Tivaouane ndax léegi xale yi liñ jël dugg si appartement yi wala kër yi ndey di daal ñuy tux si saa wala ñenn ñi dañuy ñëw di puukare wala jeegi nga xamante ne ñëwuñu pour gàmmu dañuy puukare ak defante mhm. parce que dañ ko gis si ëttu diine bëri mhm. ndax tey loolu yéen nekk ay kilifa ak suñu yaay ñuy dégg mhm. ndax loolu jël nañ seen matukaay en waaw loolu dañ siy jël suñu matukaay parce que boo xoolee euh, gàmm yi tey am waa koskaas ñu bari ñooy ñi nga xamante ne ñoo ci tali bi di orienter nit ñi am ñoo xamante ni ñu ngi ci kër yi tamit di xool lan la nit ñi di doxalee tamit nan la ñuy doxalee et puis ñun ñi nga xamante ne ay ay ay doomu Tivaouane lañ ñun loolu duñ ko nangu ñun loolu duñ ko nangu duñu nangu ngay nga nga nga jóge feneen du yàq suñu dëkk dafi dafi tux ay chicha wala ay loué appartement dafi def naka su dul noonu ñun buñ ko gisee duñ ci xaar police duñ ci xaar kenn dañuy dañuy def li ñu war a def ba pare doog a woo police parce que ñun duñ nangu kenn di yàq suñ dëkk parce que ñun ñi gis nii ñëpp ñu nekk ci arab yi nii duñ duñu duñ duñu tux duñ def naka sul neen daan doole lañ xam kon duñ nangu suñ tiwaawoon gii nii kenn duñu ko yàqal jóge fële na la di loué di fi def sul noonu ngeen bàyyi ma xel ku fi ñëw pour pour caaxaan si ñun buñ la jàppee dañuy def ak yow ni la war a def te duñ xaar sax police parce que ñun loolu lañ xam quoi xamuñu caaxaan tiwaawoon du dëkk bu ñuy caaxaan képp koo xamante ni caaxaan moo la yëkkati mën nga toog bul ñëw muy jigéen muy góor nag voilà yow ngeen bàyyi